sëñ bi Moussa saar ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di nuyu seen auditeur. yow yaay ki yor kàddu parti bii di LD. mu bokk kon ci coalition Benno Bokk Yaakaar. Euh, hmm. ngeen euh, génne bataaxal. mel ni kon ñu ci sonju waa Benno boobu. ci li nga xamante ne moo jëm ci investiture yi ñu dégg ñu fexe kon. ba yëf yi ñu tëddee ci njaaxaanaay lu waral euh, seen woote googu. waa jërëjëf li ko waral lu simple la. dañu def réunion bureau politique dimanche vingt quatre avril Dakar ñu analyser élection locale yi def bilan élection locale yi locale yi amoon en janvier deux mille vingt deux mhm. ñu xam ne Benno moo gagné élection yooyu mais am na foo xam ne Benno dafa perte comme Dakar comme Thiès comme Kaolack mhm. te Benno fu mu perte yëpp wa que waa Benno dañu àndul ñii dañu jaar fii ñii jaar fi ñu ne nag loolu moo baaxul ci coalition su fekkee ne ñu ñoo ànd ci coalition bu ñu dem élection ñëpp ñoo war a ànd donc élection yooyu jàll na ñu ngi préparé yeneen élection élection député ñu ne li amoon ci local yi warul am ci élection député ci élection député yi dañu war a ànd ñun ñëpp waa Benno Bokk Yaakaar pour gagner parce que dafa am importance trop majorité présidentielle ba Macky Sall ak majorité assemblée nationale loolu day baax ci réew mi day baax également ci coalition Benno Bokk Yaakaar te pour ñu gagner gagner massivement il faut que ñu ànd ba tey ñun waa Ligue démocratique ñu ne bu ñu defar liste yooyu. pour dem élection député baax na parti yi nekk ci bennoo en tout cas ñi ëpp te nekk ci benno ku nekk war na ci gis sa bopp parce que bu ñu àndee ku nekk war na gis boppam ci ànd bi donc loolu la ligne démocratique wax bu ñu defar liste yooyu ñi gën a bari en tout cas ci benno war nañ gis seen bopp ci ànd bi. Euh, léegi hmm. ñu gis ni euh, ci li nga xamante ne moom mooy euh, woote gi teewul ci biir Benno am na ñuy jóg di yëkkati kàddu di wax déjà seen i mbëbët ngir nekk député te defaguñu investiture yi ndax yaakaaroon ni déjà cassure boobu dina amaat niñ ko gisee ci local yi. waaw cassure boobu nag warul am parce que ku nekk ci Benno Bokk Yaakaar war nga xam ne li nga defoon. ci élection locale yi baax na wala baaxul ci Benno waa baax na wala baaxul ci réew bi mais normal na ku bugg a nekk député mun nga yëkkati sa kaddu ne man bugg naa nekk député loolu loolu démocratie loolu la laaj yow bugg nga nekk député neel man bugg naa nekk député keneen ne également bugg naa nekk lii ak lii mais bu ñu waxtaanee ba juboo ñëpp dañoo war a ànd ci lu ñu tënk donc loolu moo gën a am solo normal na avant ku nekk exprimer ambition parce que ambition moom lu légitime la mais bu ñu defee réunion def concertation ba defaat liste yi ne kii moo war a nekk fii kii moo war a nekk fii évidemment ñëpp mënuñ nekk ci liste yi ñu nekkul ci liste bi bu boobaa dañu war a xam ne ba ba nobbu gañe ñoom ñu gañe mm. donc nañ xaar ba defal constitution ba defal liste yi bu ñu paree nag ñëpp ànd mais pour le moment man gisuma ci benn jafe-jafe ku bëgg a nekk député mun nga ne man candidat la évidemment ñu waxtaanee ko mais ñëpp mënuñ nekk candidat waa LD fi nga bokk lan moo ci seen mbëbët ndaxte benn député ngeen am ci législature bi ndax kon ngeen fas yéene yem rek déet ñun duñ bëgguñu yem foofu mais loolu duñ ko waxee duñ du ma ko wax rajo wala télé bu ñu amee réunion boobu dinañ fa dem ne LD li ak li mooy ambition buñ ko déggee baax na buñ ko déggul également évidemment baax na ñu waxtaane ko daal mais du ma ko wax rajo du ko wax télé LD am na loo xam ne soxla na ko ci gouvernement bi am na loo xam ne na ko évidemment assemblée nationale ak feneen ak feneen mais évidemment dinañ ko waxtaanee ak. ki jiite Benno Bokk Yaakaar jiite réew mi mais pour le moment li am solo daal te Ligue démocratique wax na ko mooy ñi bokk Benno Bokk Yaakaar ñi bari en tout cas war nañ gis seen bokk ci liste député loolu moo mën a tax Benno mobiliser militants ak électeurs gane gagné évidemment assemblée nationale ci lu yaatu. Euh, est-ce que kon démocratie dëgg am na ci seen coalition bi pourquoi yéen bu ngeen amee ku ci nekk mbëbëtam benn nit ay jël dogal ci investiture non du benn nit moo jël conférence des leaders kay mooy mooy moo koy waxtaanee décider du benn nit benn nit kay moom du décider. Ah, te yaa ngi wax sànq ki <laughs> ko ci. waa dañu ah, ki jiite réew mi jiite Benno Bokk Yaakaar hmm. moom lañ toogal ne ko lii lañ soxla mu tontu ñu parce que LDR fi bokkul Benno Bokk Yaakaar Benno am na affaire am na AFP am na LD am na PIT am na yeneen parti donc LD mun na ñëw ne man tant laa soxla keneen ne tant laa soxla. ñu seet li jaatu pour LD li jaadu pour AFP li jaadu également pour APR. Hmm. ñu waxtaanee ko ba tënk dara buñ ko tenk nag ñëpp ñëpp ànd lu waral sëñ bi Sarr ngeen di daw ba waaj a daanu sax ci parrainage yi lim yi nga xamante ne moom ngeen di présenté boobu ak léegi te dépassé ngeen euh, li nga xamante ne moom la ñuy sàkku. non non euh, loolu moom dafa normal parce que xam nga booy dem élection baax na ñu def parrainage parrainage moom lu baax la parce que buñ ko defuloon élection député 2017 mënoon nañ toog di wote ñaari fan. parce que 47 listes moo amoon en 2017 il a fallu que cour suprême jël benn arrêté mais électeur bu duggee ci bureau de vote mun na jël cinq au moins. Hmm. donc loolu bu ñu ko defuloon mënoon nañ voté ñaari fan xam nga loolu normal lool donc parrainage lu baax la maintenant boo ut parrainage di nga war a ut lu bari de telle sorte que boo demee di déposer parrainage ñu ne na parrain bi ni nga bindee numéro carte d'identité am baaxul ni nu signé baaxul donc nga mun a am jot ko. mais bu na la demandé par exemple cinquante parrain nga yóbbu cinquante parrain rek bu amee erreur doo ko na a rectifier moo tax bu ñu laajtee fanweeri parrain euh, Benno Bokk Yaakaar dina yóbbu un million wala deux millions de parrain comme ça bu amee erreur ñu mun a pour ngardaajoo affaire yëpp parrain yëpp dégg euh, sénégalais bu am parti politique wala mouvement boo naree jëm élection député boo amul parrain waroo présenté hmm. xam nga loolu aussi il faut que ñu xam ko de dafa cher boo jëm élection état bi dina defar sa bulletin defar sa liste évidemment financé xaalis bu bëri pour yow su fekkee ne mënu am zéro virgule huit pour cent wala un pour cent des parrains mais des des électeurs war a dem élection yàq xaalis réew mi donc loolu moo aussi il faut que ñu xam ko koo xam ne daal véritablement tu n'es pas représentatif amoo ay kaddu boo xam ne amoo ay Sénégal yi ànd ak yow pour nga mun a nekk député waroo sonnal sénégal yi waroo yàq seen xaalis moo tax ku amul le nombre de requis le nombre de parrains requis véritablement o ne doit pas dépenser de l'argent inutilement pour toi donc loolu Benno Bokk Yaakaar dafa dafa pare ñu ngi ut ay pare dina am ay pare yu bari incha allah comme ça kenn du ñu bett. li yam ba am mooy boo moytul di ngeen nekk yenn ci cundum géopolitique gi ci législative yooyu ndax dégg nañu ay acteurs yu bokk ci société civile ba ci sax ñuy yëngatu ci wàllub culture yi yëglu. loolu noo ko jàngatee waaye tamit ndax euh, di leen indil gàllankoor yéen way yi. waaw euh, ñu nekk société civile wala feneen bu ñu naree ñëw ci géopolitique bi ñu dalaleen rek nee naa leen bisimilah mais egg si parce que politique moom sans politique kenn moomu ko. su fekkee ne gis nañ ne Sénégal am na démocratie de ku nekk mun nga jóg ne bëgg naa nekk député wala président loolu moom sant yàlla bu baax la parce que am nga démocratie bi am Sénégal de ku nekk bu ko nekk député wala président dafa am fu mu jógee suñu parti ñoo PS ak PS be Sénégal ab démocratie boo gisee Sénégal bari ay rajo bari ay télévision bari ay syndicat bari ay parti politique dafa am ñoo xam ne ñoo ko xee te ñi ko xee am na ñoo xam ne def nañ ci kaso def euh, ñu sanctionné leen et cetera et cetera donc loolu seen résultat la ñu ngi sant yala bu baax a baax te parti bu mel ni Ligue démocratique jeune bu loolu bu am solo donc ñoom nee na leen daal bisimilah ne egg si jam mais nañ ko def évidemment en respectant les a assemblée nationale bu amee une diversité de représentants day baax bu ñu amee député yoo xam ne euh, xam nañ culture ñi xam sport loolu day baax pour démocratie bi donc nañ egg si bisimilah ñu def élection ku mu sa morom duma amul leen benn li ngeen ciy ragal parce que am na ñi nga xamante ne wax dëgg yàlla am nañu mbooloo te askan wi naw nañ leen xam nga Benno Bokk Yaakaar 2012 ba fu mu dem élection day gagné mais ex jam ñu dem élection du bale ngeen ñàkk de yu mag sax Ndakaaru Guédiawaye Ziguinchor Thiès xam nga Dakar mosuñ ko gañ Dakar ba léegi Benno Bokk Yaakaar mosu gañ xam nga Benno mosu gañe Dakar mais texul Benno gañe élection yi xam nga Dakar mooy capitale Sénégal benn électeur macha allah mais mun ta perte benn Dakar te gagné élection te loolu moom def nañ ko defaat ko donc te élection législative yi incha allah ñu ngi préparé wu pour gagné Dakar li da am solo daal mooy député yi Benno Bokk Yaakaar na préparer liste waxtaan am discipline am unité dem gagner massivement euh, élection député yi président bi continuer liggéeyam ba évidemment Benno Bokk Yaakaar continuer jiite réew mi defar Sénégal lu mu ko commencé di defar ba au delà de deux mille vingt quatre fii ba deux mille trente cinq incha allah. gannaaw local yi lu ñu nemmeeku mooy bëri na ay maire yi bootu woon ci kujje gi mu mel ni kon dañ leen ciy fekki. mu nekk euh, xeetu transhumance daal loolu naka nga ko jàngatee lan moo waral kon ngeen di wéy di muucu ci opposition ba tey. xam nga yaakaar sa géew moom du doy yaakaar sa géew booy dem combat moom yaakaar sa géew moom du doy loolu moom président de la boo ko gisee mun na ci tontu. mais li ma xam rek mooy ñun waa Ligue démocratique ñu ci Benno Bokk Yaakaar depuis 2012 bu ñu amee ay yeneen Sénégalais yoo xam ne fekk ñëw nañ fekk si ñu ci Benno Bokk Yaakaar loolu sant yàlla bu baax la mais li ñu bëgg a wax rek mooy ku ñëw également bees waroo jël place ñu fi nekkoon parce que ñi fi nekkoon am na loo xam ne véritablement def nañ ko donc président bu ngi yaatal mais warul fàtte daal ñi fi nekkoon depuis 2012 loolu daal mun naa ko am maintenant affaire transhumance nañu daal tiit parce que ay xam nga c'est des partis souverains xam nga Ligue démocratique parti souverain la Ligue démocratique muy gis boppam ci Benno Bokk Yaakaar bu demee ba gisatul bon boppam ci Benno Bokk Yaakaar di def réunion bureau politique jël ay décision le hmm. moom moom moom moo président Benno Bokk Yaakaar moo nekk président de la République bu sentir ne war na géewam am na ci droit maintenant est affaire transhumance la boo ko gisee mun nga ko poser question mu tontu la <laughs> léegi hmm. ñu wax ci enjeu yi seen njiit gis nañu muy dem ay siège yu APR eh, ndaje yu nekk mu koy amal bokk na ci sax ak transhumance yi ak parrainage yi lim bi ngi wéy di yokk rek ngeen di wax gars yi nañu wàcc ci terrain bi lan ngeen jàpp élection locale yi ndax da ngeen jàpp ni euh, nattukaay la pour présidentielle non du nattukaay pour présidentielle nattukaay la pour que Sénégal continue am jàmm Sénégal continue di am stabilité continue di am paix Ah. loolu lu baax la jàpp ne euh, opposition day indi fitna xanaa. oui mais parce que opposition bu amee majorité assemblée nationale. day indi instabilité institutionnelle. parce que opposition bu amee majorité assemblée nationale. dara former gouvernement. président bokkul ak euh, opposition camp. loolu de indi ay jafejafe jafe fu mu am yëpp ay jafejafe jafe moo fa am fu am yëpp li gën a am solo. de garantir stabilité euh, réew mooy président am majorité assemblée nationale mais foo xam ne président amul majorité assemblée nationale day indi xuloo day indi ŋaayoo day indi instabilité te instabilité institution baaxul Sénégal boo xoolee réew yi bu wër Sénégal Mali Burkina Niger ak li am Casamance Sénégal kay moom li am intérêt pour Sénégal yi mooy Sénégal am jàmm am stabilité te pour loolu am il faudrait que véritablement ñi ànd ak président am majorité assemblée nationale ñu continuer di diriger le pays dans la stabilité ba ñu gagné waat élection présidentielle continuer politique boo xam ne président Macky Sall commencé na ko depuis deux mille douze ci intérêt sénégalais ndax da ngeen jàpp ni euh, bu laaj amee wala boog bu ngeen amul majorité euh, coalition bi dina woy di dund benn. yaakaar naa ko yaakaar naa ko yaakaar naa ko te yaakaar naa ne Benno dina continuer di dund ba au delà de deux mille vingt quatre parce que sénégalais ñoo soxla Benno. ah buñ fa yéegee rek ñu dinañ am jiit incha allah <laughs> loolu moom dinañ ko waxtaan dinañ ko waxtaanee parce que Sénégal yi ñoo soxla bennoo boo xoolee yow en en réalité boo defee bilan Macky Sall 2012 ba léegi xam nga ne véritablement Sénégal am na lu changé lu bari bari bari bari te Sénégalais yi gisuñu xam nga Sénégalais. waaye dund gaa ngi wéy di changé de di di changé léegi de ak. waaw mais euh, xam nga xam nga. am nga journaliste bi xam nga li xew euh, bitim réew il faut mu am conséquence te loolu wax nañ ko ci résolution euh, bureau politique parce que le contexte international avec la guerre en Ukraine mais évidemment il faut nécessairement mu am ay conséquences waxuma sax Afrique même Europe dund bi yokku na foofu boo demee France te essence bi yokku na donc parce que loolu xam nga réew mi léegi moom euh, àdduna benn village la lu am Union soviétique wala États-Unis il faut mu am conséquence ci yeneen réew yi donc loolu moo indi jafe-jafe yi te yaakaar naa ne dinañ ko évidemment dépasser bientôt donc Sénégal moo soxla Macky Sall Sénégal moo soxla Benno Bokk Yaakaar parce que li Benno def Sénégal ñëpp gis nañ parce que Dakar ngeen yëpp moom waaw <laughs> mais mais xam nga le Sénégal li président Macky Sall Dakar kenn yow gis na ko. Hmm. yow fi nga liggéeyee noonu. Hmm. boo dëkkoon euh, banlieue Guédiawaye boo dëkkoon Kër Massar wala yëmba di jël terre bi nga xam ne war di la Sénégal muy commencé avancé <laughs> loolu moom xaw ma fi nga dëkk xam naa ngay liggéeyee parce que ñëw naa foofu lu bari. Uh-huh. boo boo wàccee foofu dem jël terre ñibbi xam nga ne véritablement am na lu changé. Hmm. boo jaaree ci point xam ne lu am na donc am na lu am solo loo xam ne def nañ ko maintenant nous sommes en loolu yëpp euh, boo gisee ñu sanctionné ñu dakaar xam nga koy yow en tant que journaliste parce que benn amoon na liste mais ñu bari bokk bennoo dañu amoon seen liste parallèle am na ñu bokk ba APR bokk bennoo bokk yaakaar voté wu ñu Diouf Sarr xam nga loolu moom bu contexte boobu mënoo gagné. mënoo hmm. gagné mënoo gagné te je rappelle en 2017 bennoo boo gagné woon élection député yi en 2017 à Dakar. waaw ah, yéen ngeen toog ba deux heures du matin fësal les résultats yi. kenn xamul mu ah. jógee ci ah. parcelle na ah, am nga ci preuve am nga ci preuve li nga wax noonu. ah résultat yu njëkk yi de am naa ci preuve ndax yabaloon nañu fa ndaw. non les les les am nga ci preuve li nga wax ni. non yu njëkk yi laa la wax. ah de ndaw dem foofu bay. ñi mais mais mais mais sëriñ bi li li mooy le résultats qui ont été proclamés officiellement. waaw li am solo daal mooy 2017. Benno Bokk Yaakaar moo gagné élection député te incha allah bu ñu góorgóorloo am unité ci biir Benno waat incha allah. di fàttali kon yow yaay eh, ki yor kàddu parti bi di LD bokk ci Benno Bokk Yaakaar sëñ bi Moussa Sarr ñu ngi lay gërëm bu baax. jërëjëf maa ngi leen di remercier di leen féliciter liggéey di leen encourager merci beaucoup.